من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول أحمد إلى سعادة يدعو الملا بالعلم والعبادة يقول أحمد إلى سعادة يدعو الملا بالعلم والعبادة الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان aousu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ziare waat bu baax a baax a baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel moo xam ci réew mi la ak ci bitim di jaajëfal bu baax a baax a baax waaye ku gis fi ñu taxaw ak jëm ji ñu taxaw kenn dootu ko représenté ti waaye bëri nañu ci biir jumaay Touba kenn ku nekk xam ne jamono ñu taxawal ak Serigne Abdou Lahad Touré Serigne Mountakha di ko ñaanal suñu borom ko fi mu ànd ak dina jox ndigal ci weeru koor gi sax fajar gi ñëw fii di fi yëkkati xasida yi loolu nag bokk koo xamul da koy jàpp ci yoonu murit mu doon kan loolu jiitu na ci ñi nga xamante ni mooy Sëñ Abdou Lahat ba ci eh, jamonoy Sëñ Fàllu loolu fësoon bu baax a baax a baax mel ni Sëñ Muntaxa dafa ñëw feddaliwaat loolu bu baax a baax jël ñaar ñi nga xamante ni seen lépp xasida yi la muy sëriñ Ibrahima Guèye ak sëriñ Abdou Lahad Touré ñuy taxaw li nga xamante ni mooy njàngam xasida mi fii ci fii ci fajar gi fii ci fii ci biir jumaa ji sëñ Ibrahima mel ni loolu lu sedd xolu murit yëpp la waaye rawatina képp koo xamante ni xasaayit la ñu ngi ciy bu baax a baax xam tey ci waxtu yi nii xam dina xaw a jafe waaye li ñu bëggoon xam rek ak ñu bëggoon nemmeeku ndax day mel bokk taal yi nga xamante ni ñoo lay bàyyi xel fenn fu nekk ci biir réew mi di kontaan nañ ci loolu macha allah ana tey loolu ban jàngat ngeen ci am jàngat yi ñu bëree Serigne Mountakha tànn leen loolu def na ci yéen soññee bu baax a baax a baax. waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu di sant rek tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéeral ay cëram ak mboolem Xadim di nuyu mbokk taal bi yëpp. ñu jullit yëpp di sant rek ci ndigal lii sëñ bi joxe keroog bi ñu umee <coughs> Cees lañ ma wooloo téléphone ni ma kay wuy sëriñ bi maag sëñ Abdou Lahad Touré yàlla dogal sëñ Abdou Lahad sax moo njëkk a yegg bi mu yeggee sëñ bi wax ko li mu bëgg ci jumaa ji ci waxtu njël ko diggante ñaari nodd yi daal dama bëggoon ngeen fi yëkkati xasida yàgg Ibrahima Gueye la seen xel jàpp Laat mu demee moom mu njëkk yegg mu leeral ko loolu man bi ma ko jotee téléphone man ma dugg naa ci ba génn man yaakaar ni sax man du jar may may ñëw ndax lu mu wax sëñ laat doy na sëkk la ko boole maa di mel ne lu wàññi ko waat ndax bi ma maa ngi ci yoon waaye mu jotee sëñ laat ma gis na sëñ laa daal di wàññi ko waat ngir yeggale yitte yi doon def ginnaaw ba la sëriñ bi naa ñëw ba mu wax ma li muy wax waxal ma ko boppam bi ma ñëwaatee waxtu benn waxtu ci guddi laa ko fekk daaru minam mu xam ne ma ni ma xam naa li nga nekkee te xam na yëg na fulku Thiès beeg yi tey ji def yëpp waaye dafa bëgg euh, maag sëñ Abdoul Ahad waxtu jël ñuy ñëw fii ci jumaa ji di fi yëkkatee xasida si ko ni ko noo ko bëggee rek mbàkk ko defee noonu incha allah noonu noonu lañ ko topp bu sëriñ jàngee tey bu subaa su ma jàngee ful bi damay ñëw fii awu ko ci liggéey boobu nu àndandoo ko boobu tey dëgg yàlla sëriñ bi mi ngi sant mi ngi yónnee ay bu baax di wane ni ni mu ko bëggee woon daal nu ngi koy nu ngi koy jéemee noonu euh, di sant nag ndax loolu moom mm, jànkuwut xasida yëpp euh, la ko la ko sant day mel ni nag oto moom du ñàkk euh, ab sëfër loolu rek waral mu tànn nu waaye ni nga xam ne ñépp ngi ci biir ñëpp lañ ci fasaal loolu nag ak cant la goo xam ne ndax xasida yi ci boppam euh, moo gën a rëy lépp jumaa jiit gën a màgg lépp moom sëñ Mountakha it gën a gën a gën a gën a gën a màgg ñëpp kon nag muy yu màgg yu bari yu daje ndax doon ko defee ci dëkk bi wala fi ñu ko mën defee rek jàng xasida moom baax na waaye nag euh, barab bu borom bi mu tànn ñu ko defee Touba doy na sax fépp fu ko defee rek baax na waaye nag lu mu mën a doon yaakaar naa def ko ci jumaa ji bu dee lu baax mel na ni moom lañ ci gën kon nag ñu ci sant borom Touba ndax euh, day mel ni luñ jomb rek waaye euh, Serigne Touba moom saa su ne bu la bëggee dimbali rek xëy di mel nii rek la ab soññee lañ ko jàppe waaw ndax rëy na ci noonu lool waaw ñu ngi sant Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal lim semb suñu borom yeggale ko wax ba lim ko bëggee rek mu defee ko noonu waaw noonu daal amuñu leen luñ ci wax lu dul ñëpp ñaanal ñu ba ñu am kartan ak ak ak ak ak ko mën a yeggalee fam fam ko bëggee ndax ñor na ko lool waaw waxtu bam nu woo xam naa ni bu dul woon digal gis ko suñ jëm yi gis ko dinañ dinañ jafe lool waaw waaye ñor ko ñor a tax mu ni buñ ko fekkut ci kër sëñ Tuubaa gi ko fekk ca kër sëñ Basiru waaw wax dëgg yàlla moo def ci yitte soññee ji lool nag waaw kon nag ñu ngi ci sant di ko ñaanal suñu borom gën ko dolli gudd fan ko dolli wér dolli ko kattan bu muy gën a liggéey bi rek waaw ak cant rek la ak ub soññe jërëjëf sëñ Ibrahima sëriñ Muntaxa bu ne woon kirikoro ngeen jàng jëf xasida yi sax ngeen dem fa waaye wax nga ko léegi rawatina ci barab tedd bi nga xamante ni ci lañ nekk muy jumaay Tuubaa nga xamante ah, kenn ku nekk ñaan nga yàlla lu mel ni nga ko fiy def see maanaam boo fi toogee di jàng xasida ban yéeg-yéeg nga yàlla xanaa gën a sant sëñ bi rek ndax jàngum fajar jël gi moom yàgg la da dellu si waaye sëñ bi mag bi ci boppam mas naa woolu sëñ Masamba xamal ko ni ko borom njàng mi da ko soxla ci waxtu woowu waaw waxtu fajar nga xam ne waraloon na sax mu wutoon ab lim ngir ñu wutal wakkati masamba yi daay kuréel ay mbubbi sedd yoo xam ne ngir boobu jamono jooju sedd bi ak waxtu bi ñuy ñëw ngir ñu mën di ko sol ba yu bari xew ca waaw ba ko sëñ Massamba bëggee wecc ko ci àllal boppam ak ba mu ñëwee la ko ci sëñ bi wax ak muy lu gudd loo xam ne xëy na xajul ci jotaay bi waaye nu xam ne sëñ si loo xam ne lu fi yàgg la ndax uh, borom njàng mi moom bu sëñ bi ne dafa soxla njàng mi ci wax tu woowu ñu dem ba ki fi nekkal sëriñ bi dellu si waat loolu kon nag xam ne rek maanaam uh, ak cant borom Tuubaa man loolu laay yëg ni yëg maa ngi ci yëg ci ni daal moom sëñ Mouhamadou Mountakha daal lim doon moom mate ko sëkk waaw te it borom Tuubaa rek ku neex waaw te it Euh, xasida yi rek ko ñor waaw waaye daal ñun ñu ngi ñaan rek euh, ni mu ko bëggee rek ñu am kàttan ak tawfiix ba mën ko defee ñuy ñaan rek waaw rek nag mu ne si def lu sant rek ak ñaan sax mu moo tax ko dégg noonu nag lii nag mu doon kenn ku nekk ci yéen euh, mbégte la ndax lii nga xamante ni moom moom la doon def fii ñu digalug Serigne Mountakha Mbacké yaakaar naa ne jumaa ji ni mu toll ak jànkat xasida yi niñ toll buñ ko tànnee moom ak sëñ Abdou Ahad Touré chaque fajar ñuy ñëw fii di fi yëkkati li nga a ne mooy xasida loolu taw feex la di leen ñaanal suñu borom gën leen a kàttanal di leen ñaan jël si ci ndigal li nga a ni sëriñ Muntaxa jox na leen ko kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu على الكتاب لا تزال قائدا لي والفيكون اللي يحب للجنان وفي الجنان لا وداها في الجنان إلى الإله قد كل حمد ذا عزمة من قدر وهمد صفا بقايا القديم الباقي ذو الأردين سبي وتباقي أتجاد عن عدم ودرري وبالإسان جتري بدرري amaltani ilman wa yimnan nafa'a wali siwaaya maa yasun dafa'a baada rajil busaru wal amaanu liya wa waddu man huwa rahmaanu ozni ala alladi illa yaqaada nafan bila madaratin fanqaada laana liya alqalbu alladi man sarafa لدرري وما إلي انحرفا جد سرعات وجميع على قبي بالله من لي قاد كل من غبي نفع عني نافع نفع لم يرى وعد لغيري ولغيري لن يرى نفعني رحمن ورحيم نفا بالقاتل يترحيم هداني الهدي داية الخبير وقاتلي بفعل الجزى الكبير هداني الهدي داية الخبير وقاتلي بفعل الجزى الكبير نفذ العليم بالعلوم هل يدايا إلى تعليمي hadiyati qabiltu zaati laawa mutadiyan bilaahi za xalaawa manna alayya laahu bilkitaabi bilaa masaqatin wala itaabi baada alxilaami wa ruuxi wal jasadi wali siwaaya laahu sabba man asadu yaqoodu linnaafi nafan asuma wali siwaaya saaqa man taxasama همتي أتقى لتعليم العلوم لوجه من لا وجه أليم أتي بتعليم عن تعلمي بغير نكر وبغير يلم خدمة خير العالمين علمتي خير العلوم كالكليب علمتي إن قلامي للإله والرسول غايدة ماردة وخير رسول liwaji rabbu ya uallimu almurid bila awan wala laxan wala marid laa xilaam ya li qadin kawni fi jeebi man jucila nuur alkawni wajaadu qadin alfurudi wa sunan liwaji man yaquduni xayra alminan nafaasi wa alqurani wa tilawa walxayri lilxayri wa lilxalawa ashaabul jannati hum fiha xaalidun alhamdulillahi taala wahda wa innani loo udimul wahda salaatu ala alladi qad faddala ala xiyaari almursalin alfudala xama jaati kulla albaaqi aljamil ama yesu wali xayriya yamin amadu rabbi ala albahai خير الورى شفيع جلهائي براءة المقدم المختار هذا اللي أصفى بلا ستار أحمد ذا المختار من حناس خدمته تغني عن الأجناس لو جميع من تمالي رسلي من العجائب بإذن المرسلين لو جميع من تمالي رسلي من العجائب بإذن المرسلين جزاء أحسن جزاء الله جزاء أحسن جزاء الله في الآل وسب ومن والاه جزاء أحسن جزاء الله في الآل وسب ومن والاه نبينا أحمد نور العالمين نعم الحبيب والعجيب والأمين نبينا مرقاد سورا لي بربي وجناني نورا هو النبي والرسول والإمام نعم الختام والكمال والتمام تسليم من له ديم الوهد على مزهد العناء وهد هدى رسول الله صلى الله عليه نور للذي ولاه محمد فرلو ما فرا لو الكرام من مرام سرا فلا من يوى نبي كتب بغير ما وسمد فانكتب يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام الخليل أحمدا عباد خير العالمين وابدي لجملة ثلث ما لهم سبتوا أمرنا للكرماء خيسي وإنه على اليام ليس أمرنا للكرماء خيس وإنه على اليام ليس خدمة أحمد لغير سسد ملا ويب ودور يمحد عديد المداد والقلامة وغيرها ودر العلماء لله بالمعتاد سري والعلن ولي بي قاد ربي ولن دعا قلامي إلى الكتاب هب الذي قاد لها كتابا وجاب المعتاد قبل ما سروا بي لغير العدو فانترفوا نبعني بمصطفى ولاه صلى عليه ما من والاه اللهم بإخراج الآية الكريم صل وسلم وبارك على من وحده على من وعدتك ومدته بقولك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجني من أهل الجنة التي وجه متقون وأجر علي بركات الجنة التي وجه متقون وجعلني محبوبا إن أهل الجنة التي وجه متقون وأهلي بأقوى الآية الكريم duxul aljannata allati wa'ida almuttaqun bila shay'in min al-afaati wal akdaari yaa man lahu haadihi daaru wa tilka daaru amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin ashaabul jannati hum fiihaa xaaliduun ahmadu rabban kaana li alanaa asamani min al-idabi walana saana jihaadi sidda baaxin axsana li zahiri wa baatini faasuna qabiloo walinabi tabayana waliyamaal ixtaara qanayana akura suran yazidu yaqana waliya laa yubdi dawaa yaqina ba jëlani mawjan karimun makkana wa tayya bariqa lina wal maskana ba jëlani mawjan karimun makkana wa tayya bariqa lana wal maskana illa ya qaadallahu ajran hasana wa yaqazan tayabbali wal wal wasana lii qaada fi nawm yasiran batana wa bi bàyyi kulla man tafattana jamaalu rabbiya tawajjalanaa bi xayri magrin zaata nasuxin lanaa nabal aziizu maa yajurul wasanaa li xayri naxwi wa li xayri yansanaa naba alladi kajal aadi wahanaa yakiiwanaa fi kawni lii wahanaa hadamtu billaahi binaa man luinaa bilaa liqaayin wal ilaahu maanaa تبدلوا من غير شكر علنا وقادري من وتعالى ولنا هديتي إلى الجنان راقي من الإله لا تزال باقي مدرتي بلا سبوج فاني يبقى سروري من جمادى ثاني وجاني من كان لي بالقافية بما دام لحياتي سافيه يقعد للباقي قطوفا دانيا وبصري نجا تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفراء ولا أكون عانيا إلا تنقاد الأجور الباقية بكل عادة ونلت الواقية عدي يقود لي خير عافية مع سبا ولم خير عافية ألا نجل باقي القلوب القاسية بلا لقاء لا تدار الناسية لقاء ذكرا لا أكون قاليا لا تمدو ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي سافية من كل جن وخير ضافية وجعل الأكرم آيا كافية ما ساني دنيا وأخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقاد الأجور الباقية أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام قديمك الذي كفيت الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام وسمقام دونه كل مقام yaa nuura kulli aabidin saama wa qaam adalazi axrajana min azalaam bika li noori man abaaka bil kalaam basharaka aljamiilu yaa xayra imaam bima nawaytu fi kasaayan za tamaam anta nabiyu wa rasuulu wal umaam bika alqiyaadu saalihiina bi zimaam laka la daara bil waraa kullu maraam laka bihi ya sayyidi asna ixtiraam jaadalana baaqin taala an manaam bika fa anta sayyidi xayrul anaam nawaytu zubra alayka kulla aam wa kulla shahrin wal kitaabu li di'aam nawaytu zubra alayka bi qilaam wa xayriha ya sa jawaami al kalaam adiyati xud karaman bil ihtiram yaa qaa'idani min ilaahika almaram tubtu li rabbi zaahiran bi zanisam laka wa qabla wa bawta bi izam bismillahi rahmani rahim allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi afari wa sallallahu taala alayhi wa sallama bi ajal xuruf يا ذا الخير والمير والمعروف آمين يا رب العالمين هم فيها خالدون خدمة يا تقل لخدمة النبي xidmata tabsirin wa safatun bi ma nabiy almuntaqa tasabsu bi wa xayrati wa saanani an kazibi axal wara muxtaaruna fi nasabi wa xuluqin muazzamin wa xasabi yaqaalu ummati nabi fi lkurabi wa xayra nafsi faqad harabi ibaadu mina ibaadu adabi وعن يعد العجم أهل القرب أمرنا المختار باب الأدب كالعلم والعمل ما حلو دبي خدمة دواني أزال التعبي وزازات لغير نحوي مطربي أم دواني أزال الحجبي في البر والبر وغرجبي للمدقى وجدت دون سخبي ما سرها وأملي لم يخبي دعا حياتي للنبي المهذب كوني خديم بلا معذب وجالي حياء الليلة يبي أغرماني أن لغن وريبي نويت ويدال إلهي والنبي شكرا ولي ربي يصفي تنبي هم فيها خالدون adaani lay bil muqafa muhammadi alayhi salaatun ma salaamin musarmadi midaadi wa aqlaami li rabbi tawajjadi biqatin yasur almuntaqa yawma sayyidi falaahu allati yaqfaahu daa abdal alwara mudaamun lada ladin karimi almuayyidi yaqini yaqini hubb ma laa yuhibbu نبي رسول جادلي بالمخلد أبيات خير الخلق ما ساءني نفت لغيري وأغنت كلي عن تجلد إذا ما تلوت الآية لانقادت المنى وينقى لغيري سرمدا ذو تمرد قد ترى والأسوأ والكل وجها إلى غير نبي مالك ذات فرد إلى المنتقى بلغ لي وجهك خدمتي ولي بخيار صافيات بسد ليزد بأني عبد العاصي ودو وإني خديم المنتقى والتمهدي دريد إلى أن والد الخير مالك وكن لي بغفران وعفو وأيد وسعت بك الدارين يا خالق الورى بزيرك والماح نبي ذا تقيد نعوت لربي والمقفى محمد عليه صلاة مع سلام مسرمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات شياطيني وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ووجه إلى كل من قصدني بسوء إماتة من قال من كان عدوا لله مميتك فمن توجه بدرو لي لو في عاجل يا من يضر نافع آل كل من جنابي نحى بدر ودز العنابي كريم كرمني تكريما يدوم bijaayi man jaaltani lool xadim haadu julliya bi an laa usrika bika layaajan axsini man ashraka nafeeda zakki waxay daaka fi lxamis yaa man kafaani al amira walxamis allimni al ulama taaliman alim waliya minka takallum alkarim daa yastajabta rabbi fi safaru وادفع عدوا قد قلاني في العفر ودعد ودني بالانتهاء بالامن والبسر وبالهاء واب ابلي مواعب الكبير وقل مبارز فورا للخبور أبي على تقن حالي بضرر سدوة عذراء إلى قدول شرر للمصطفى وجب الانتهاء خير سلامك وزد لهائي laa iya jantar ma jang ma quudaa liya bi qadrika qiñal wa quudaa lakad taraktu bi nabi min al idaa alaysa li wa fi kayda man adaa habli qiñan ani salaahi bil mumid wa dugnini aman khalaani wa yamut subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin man jalla